Mouhamed kii lu raw lii dina ko am ndax lii démb la du tey gis nga doom nii lay fompalee ndeyam rangooñ ndax yaay saay bu sonnee mi ngi ñaan yàlla doom bu ko aw Fatima li mu am mérite la ndax ndeyam moo ko liggéey fii dafa naan ndox démb reere ndox añee ndox tey jii bu ginaar ñëwee wala mis wi dina gis ñëpp yi ndeyam moo ko liggéey ci kër baayam kon Fatima loo bëgg yàlla na la ko yàlla defal ndax da nga seral sa xolu yaay Fatima nii rek la mën a mel moom ak magam ji Ahmed Yaasin ñii bu ñu melul nii man damay xàcc ndax liggéeyu ndey mooy añub doom kii Fatima fu mu toll nee yaayam jërëjëf fu mu toll nee yaayam jërëjëf ndax yaayam moo ko liggéey bu mu ba mu tiit ndax yaayam dindil na ko dëj yi ci yoon bi lépp lu koy gaañ yaayam dindi na ko kon fi toll nii moom moo ci des asalaamualeykum wa rahmatullah

jaraaf voilà chers internautes de Sénégo ñu ngi leen di nuyu bu baax ñu ngi fii euh, ku gis ki ñu toogal tey xam ngeen ne kenn dootu ko présenté donc muy euh, benn femme boo xam ne femme battante la laa ko mën a wax mu ngi ci réseau yi euh, di jaay borom Dubaï laa ko mën a tuddee muy Fatima Diagne donc tey nag muy marié wu dégg naa deuxième daam la mais damay bàyyi ba si kanam ma ñëw ci loolu Fatima ñu ngi leen nuyu di la souhaiter déjà un heureux ménage di la wax nga nuyu ñi nga xam ne ñoom ñoo la ñu seetaan. waaw euh, merci beaucoup ngi leen di nuyu yéen ñëpp encore une fois ça fait vraiment kontaan naa. Euh, tey nga xewle say bokk mm, say xarit ñëpp teewe la bi nga gisee gars yi daal la lan nga sentir. waaw sama xol dafa sedd rek parce que nit amul lu dul bësam te man samay mbokk laa am samay xarit laa am te nit euh, li nga li ngay joxe rek lañ lay delloo jàmm moom boo ko sekkee ak ñëpp. dañ la koy delloo ba mu mat sa kontaan sama xol sedd na vraiment. nga ñëw euh, sa yaay lonk la nga jooy ba yàq sa maquillage bi lan moo waral euh, rongoñ yi ay larmes de joie la wala nu demee. sama xel dafa dem si lu bari. sama yaay euh, dafa nekk koo xamante ne du ma ne sax yaay parce que sama yaay sama xarit la. Mhm. man ak moom benn la sama xarit yeeg ñëpp ñëpp la maaseel. te dañoo jaar fu bari man ak moom. xam nga jigéen nga nekk yow kese yar sa ñaari doom kenn du leen gis ba ne cam loolu sag la sama yaay dafa jàmbaare dafa muñ dafa xaar man su ma deful woon lii rek dama koy dama koy tooñ man sama yaay dama ko waroon a tontul bu baax a baax a baax te pareeguma man moom rek laa am lu may def moo tax lu may bàyyi moo tax loolu kese moo tax sama rongoñ tuuru sama xel dafa sori en fait moo tax ku dégg ngay yox aussi day xam ne ne da ngeen jaar fu metti ndax am na bi ñu ñëwee ku ñu njëkk a dajal muy sa doomu ndijaayu yaay mu ñuy xamal ni que tey danga tontu sa yaay wax boobu la lay signifier. waaw parce que euh, man sama yaay si kër gu mag la doon sëy te ku ne ku wax kër gu mag xam nga li li ku nekk di xaar kenn doo bëgg sa doom gën kenn sama yaay mu nekk jàmbaar xale la man sama yaay boo ko gisee da nga naan maax moom ñoo maase waaye xale bu am jom xale bu xam lu bëgg. bu ma toppul woon ci ay tànkam tey du ma ko tontul te kenn du ne bett nañu ndax bet du bett kenn mais tey macha allah wax wax bi mënutul bari quoi parce que ku nekk comprendre nga ku ne xam na sama yaay bi muy sonn lu taxoon muy man di Mouhamed lii rek lañ mënal sama yaay. Mm-hmm. awa wala ñaareel. ah ñaareel deuxième dame. xale yi nag dañoo feres temps yi deuxième dame rek laay dégg. Euh, madame madame Cissé la. Cissé Ngare Ndiarmew Tumbal Galas. <laughs> tey boo jàkkaarloo sa jëkka lan nga koy wax ci caméra bi. Ah, dama koy wax ne que bettu ma ba ko ne jàkk laa xam ne sama rongoñ ci moom lay fere. ne woon na ma lépp lu la naqari si man lay seddee te macha allah maa ngi koy gis. di ñaan yàlla lafal ñu cat musal ñu ci pexe noon bàyyi ñu ak suñu sago ndax maa ko xool tànnal ko sama bopp tàmm ma ne tànn ma n'importe qui xam naa bu baax ci ki ma dugg waaw Cissé Ngari naa la sëyal ba dee incha allah. récemment ñu gis ni sa yaay dafa jóge woon màkk on dirait que ñaan bi dal na ndax dafa jóge màkk rek nga am jëkkër. loolu dëgg la 40 jours yi sax matul macha allah. waaw daa jóge màkk rek macha allah yàlla yàlla def lii ñu koy waat yàlla bu baax a baax alhamdulilah. Mhm. Euh, mënuñu fi ñëw nag wax ci mariage bi ba dem te duñu wax ci. Euh, coowal Dubaay xewoon na fi ñëpp di wax man nag ci commentaire yi laay gisee gars yi di la tagee lu tax waxoo ci woon lu tax dégguñu la si. waaw parce que xam nga wax ji dafa bari. man sama yaay laam fekkuma fi sax daf ma fekkoon ma nekk sama liggéeyukaay Dubaay. sama yaay gis lépp ba mu liiree mu ne ma looy waxati yow ñii tontul nañ la ba pare. te dëgg la parce que bu ma doon wax la laay wax. xaw ko sant yàlla parce que nit yi buñ la xamalee lu baax. ba di la ko seddeel ñi nit yi di wax ñoo xam ne jëflante nañ ak yow 4 ans wala cinq ans mm-hmm. gisuñu la ci nonsense gisuñu la ci lu bon gisuñu la nga dugg si lu sa yoon nekkul mm-hmm. man ku ma xam xam na ne sama statut sax sama njaay sama rakk sama yaay kese laa fay dugal mm-hmm. nekkuma ci leneen nit lu mu ma waxal daf ko sos parce que kenn xamalu ma leen dew ma dikku ma dew ma restaurant dew ma boîte dew ma fen man suma ma liggéeyul maa ngi sama lalu yaay bi toog donc loolu kese moo tax waxuma parce que kuy wax day fekk nga am loo def bëgg a justifié wu aw moo lu ma fa wax parce que def moo dara. dëgg la nekk xale nekk euh, femme entreprenante di tukki di ñëw est-ce que yomb na parce que xam nga dëkk bi ñu nekk Sénégal defu wax deful wax ngay jàmbaar di tukki di dem di ñëw yor sa boutique di jaay di def aussi li nga xam ne moom mooy vente en ligne mën naa ne sax influenceur nga donc yow loolu est-ce que métti na walla. pas du tout parce que man yàgg naa jaay business yàgg naa si. donc du nekk dara lu bees à part euh, tukki te mi ngi bëgg a yàgg donc dañ koy miin loola te man je voyage tout le temps avec mon petit frère Mohamed donc yan bi lu mu diis diis day nekk sama wet loolu moo tax dara méttiw si te déggaguma si lenn lu ma nakkari vraiment. ban relation nga am ak jaaykat yi aussi ñi nga xam ne ñu ngi leen di gis ci site internet yeex yooyu est-ce que am na ñoo xam ne am nga si ay ak ñoom relation wala da leen di seet nii rek. vraiment man hmm, man promouvoir uma sama bopp man sama liggéey laay promouvoir. donc euh, ñi si internet bi ñu si bëri dinañ sekkante jàmm des fois ma dajeeg ñu bëri si avion yi et ñu ñu defante petit ku jeex na mais fréquentante ñu parce que man damaa demul fenn moo tax. xam naa loolu da ciy joué parce que dem lan teewuñu man dew ma fenn moo tax. mais jàmm lañ sekk ñoom ñëpp kuñ si taseel dinañ yoon te tout mu jeex. voilà donc euh, tey ñu ñëwoon si sa mariage. ñoo fekk la duñ la sonal nag ak wax ndax tey bésu mbégte la euh, wax ji nag mën na bëri mën na bañ xam nga olof Njaay nee na wax waxaat du bëri wax dañ lay jox micro bi rek nga jàkkaarloowaat ak caméra bi wax li nga xam ne ne moom nga bëgg a wax sa jëkkër nan nga bëgg mu téye la ndax nag c'est vrai que dugg-dugg bi tuur bi mais xale nga nan nga bëgg mu téye la ak yow nan nga ko nar a séyele. waaw comme ni ko sama yaay defee rek laa koy defaatee incha allah. Mm-hmm. mu xam ne moomin la takk xamul dara waaw <laughs> ah, waaye dina def li ma wax incha allah mu comprendre jabaram xam ne que yàlla moo def ma nekk nitu nit yi waaye taxul ma ñàkk fayda taxul ma bon parce que xam naa sama bopp bu baax te moom xam na ne man xam naa sama bopp parce que doful xam na fi mu dugal xaalisam bu baax loolu fii ci euh, mariage Fatima donc moom léegi mu yegg si ñu ñëw fekk fi gars yi di décorer yow lañ fi fekk soxna si ñu ngi lay nuyu bu baax Ulich. maa ngi leen di fay bu baax a baax waa Sénégal. Uh-huh. ñu ñëw fekk la fii euh, yow yaa gérer décoration bi ou bien. waaw man maa ko gérer man maay Ulich Evans. Euh, du coup fatiment sama xarit la sama lépp la bi ma contacté pour affaire décoration mënuma ci teg baat moo tax tey ji ñu fas ne koo defal loo xam ne rek yëfu ñaareel lay nekk rek yëfu xale <laughs> xam nga ñun ay moomin lañ. <laughs> da ngeen mën tendance daa temps moom ñaareel yi dafa mel nii dañoo yëpp aaway de trop. dañuy tendance rek mais euh, décoration bi nice na da nga ko jàng wala nu mu demee. Euh, nekkul lu ma jàng nag passion la rek ma doon jàng fii di ko defaale nekk première année di ko def ànd si ak sama copine yi nga xamante ne suñu ma seetaan fu ma leen woo dañuy ñëw nekk ak man dem naa fi Maroc aussi doon ko def doon décorer et tout par la suite ma dellu siwaat fii continuer sama liggéey fii ne mhm. la nga ñu mën a wax ci Fatima. ah Fatima comme comme ni ko ñëpp séedalee rek xale bu baax la. ku yaru la wax dëgg fa neex yàlla man ak moom bañ xamante ba tey tànkoo naa la ba tey dara ñaawul ma gis mu bëgg yaayam respecté ko te man moom maa nekk nit koo xamante ni soo bëggee sa yaay rek dama lay bëgg parce que je me dis que nit amoo lu dul sa yaay rawatina jigéen sa papa génn àdduna bàyyi la ak sa yaay ak sa rak nga nekk taaw mënoo def lu dul taxaw leen rek. Mhm. <laughs> sama cadre bi bi nga koy xam ñaataat nga amoon. Ah? <laughs> boobu est ay 12 ans je sais pas na de temps partiel waa. yàgg na quand même mais moom tam mu nekk nit ku baax dañ daan di photo solu si meeku et tout voilà c'est ça. Uh-huh. remercier bu baax. maa ngi kontaan bu baax aussi ci li ngeen ñëw fii et tout merci beaucoup quand même.